waaw Saer maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu dental waa dental TV nuyu la zone TV eh, di wax ne tey moom sama xol dafa sedd dèjà ba ngeen di ñëw sax fekk nañu waxoon sax ba eh, yeewoon wax bi waaye eh, foog ñu waxaat ci. Eh, ngir lii nii lii teraanga rek la waaw ndax yaakaar naa eh, su tegee ay ñaari nit di ko xëccoo ñuy nekk ay doomu Sénégal eh, yàlla def Lac de jël ko muy sama sama sama sama féetewoo di sama xarit di sama mbër di sama lépp mu ñëw nag àndaale ak sama papa bi mu Mohamed Ali mii ñëpp xam ko ci Sénégal xam médaille yu mu indi ci Sénégal xam trophée yu mu indi ci Sénégal xam lu muy jàppale waa Sénégal kon su ñu ñëwee fii seet si ma fekk ma fii sama place liggéeyukaay te Lac de fii du buleet mu ñëw fii ñëwoon na fi boobu yàgg na dafay ñëw mu nekk ay wëllëre te kóllëre moom yàllaa ko njëkk njëkkateel boppam kon sama xol def ci sedd bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla na ko jig eh, yàlla na ci yeneen trophée ak yeneen ndam yàlla na ci topp ci barkeb Serigne Saliou waaw di bëgg lool tamit ci trophée bi ndax bi président Macky Sall moom lañ ko duppee woon moom lañ ko tuddee kon su ñu ñëwee indil ma ko man dama ci yëgaat ak cant goo xam ne ku dul Serigne Saliou seede lu ma ko ko ndax lenn euh, muy ndamam la ñu bëgg ñun président Macky Sall di ko jàppale sans intérêt nag ndax fi fekk ngeen ñuy daan suñu doole ñu ngi liggéey waaye dañ koy jàppale ngir moom mu jàppale waa réew mi ñun tamit fu ñu féete ñu def lu ñu mën loolu rek ko ko waral kon daal Sayer sama xol sedd na bu baax damay ñaanal euh, lak ndam bi jikko yàlla defal ko jàmm ba lépp lu mu yéenee liggéey ci carrière am yàlla mottali ko ba lépp sotti di ko ñaanal sunu papa bi kii Sénégal yëpp ko war a ñaanal te Sénégal yëpp war a roy ci moom ndax tey dem na ci réew tubaab yi ak yeneen réew liggéey fa boo am li mu am tey bépp mbër boo xamante da lay jàppale moom mën na la fay yow ak ki la li la promoteur bi di fay yëpp waaye lépp ñu ko la ko def jàppale la te yàlla rek tax ak encouragé ay jeunesse yoo xamante ne dinañ mën a rëcc di ñaan kii dañ ko war a dekoore ci Sénégal yépp saa su ne ngir li muy def muy nit ku baax waaw muy sama papa nag nekk nit ku baax yal na yàlla defal la jàmm defal la sutura eh, lépp loo yéene sunu borom defal la ko loolu daal laaj doon yëkkati sa yar di wax ne su ma doon wax ba suba mbég rek lay waxee ndax lii moom ku ko am faw nga wax ndax du eh, su leen neexoon lii yëpp du leen ci fekk man teguma leen ko ndax kii su ma su ma su ma su ma koy jàpp yàlla rek moo tax ndax nit boo ko lu dul yàlla ëllëg da tàggoo te yàlla du jeex jërë ngeen jëf mais duñu def rek lu dul kontaan xam nga aduna nit du fàtte démb te baseruka nekk nit ku baax waaye nag nee na nee nañu tamit neddoo ko bandoo xam nga kaa foo ko dégg xam ni xalpulaar la man it xalpulaar la donc bu ñu nee dafa baax duñu bett parce que yàlla def na xalpulaar yi ay nit ñu baax lañu doon ko dégg nak te gisuma ko ci parce que biñu ñu ci préparation bi wax dëgg yalla turam ñëw na ci lu bari bari ci limuy japp ci lu bari ak ci yéene bi ki nga xamanteni nak aussi mom moy Ndeye Seck mi nga xamanteni tay moy mooy liggéey ak mom wax dëgg yalla mu libéré ko parce que ki ñepp xam nañu jigéenu papis la té lépp lo xamanteni rek lu jëm ci mbirum organisation yu bari yu ñuy def ci doxom la nekk munoon na ko cee bañ a fekk nag parce que moom moo ko ci moom lay liggéeyee moom moo koy fay bu weer bi deewee waaye da ko ne rek tant que Papis mi ngi ci préparation yi rek yow amul benn problème même boo ñëwul garaaw parce que xam nañ ni combat bi am na fu mu leen toll yéen waa Géejawaay xam nga nag nit bu ko askan ñoree wax dëgg yàlla képp kuy doomu aadama sa xel dafa war a jóg ci ne kooku kii nit bu baax la bu ñu ko waree jàppale ñu jàppale parce que réew mi moo soxla tey ku mel ni Bassirou Ka jeune la yàlla mi ngi koy defal jàmm ak salaam. parce que li tax réew mi am problème mooy ñi nga xamante ni dañoo war a jàpp jàppuñu basiru kan ak ñëpp xam ko ci social foo ko fekk rek mi ngi dimbali néew di doole yi même liggéey bi muy def sax ba ci lépp lu mu ciy def rek daf ci def ay cas bii pour les cas so les cas social la beneen bi ñi nga xamante ni am nañ lu tane beneen bi tamit pour ay barmala pour te dire que ni loolu ci jaamu yàlla la bokk xam nga nag nit bu melee noonu et puis di créer emploi di topp di toppatoo jeunesse bi kooku réew mi daf ko soxla nekk nag xaritu Macky Sall c'est que nag comme li may wax toujours rek Macky euh, nit ku baax la problème mu Macky Sall mooy ñi ko wër la ñu waroon def defuñu ko te pourtant ñooñu lañ jël def leen ay ministre ñu nekk fii ci réew mi di jaay jekk costume ak jekk cravate jekk gar jekk jekk garam boobu ku leen woo téléphone duñ la wuyu defuñu dara man loolu man maa ko wax parce que lu may dund la fii ci réew mi mais am na ci ñoo xam ne ku mel ni Bassirou Ka Mame Matar Ba ñoom Amadou askan ba leen ñor dañuy jël seen lépp di ko def ci askan bi pour jàppale du pour politique pour dara mais tey li ñuy ne ah Macky Sall suñu nit la Macky Sall suñu kilifa la tey wax dëgg yàlla askan bi dañ leen a war a jàppale jël seen alal di ko jaral askan bi nag loolu la soxla di ñaan yàlla defal ñu jàmm kii nga xamante ni wax dëgg yàlla moom mooy frère Bassirou Ka ñu naan Lac de Guiers 2 nekk géejawaay xale yi géejawaay yëpp topp ci ginnaawam. momit it lolou ci aussi basiruka ci taxaway bi ci doxalin bi mais diko xamal comme ni wax toujours rek quand on dit ça bouge pas ça c'est la famille la famille ça bouge pas la famille n'a pas de prix té lolou lay dundal la de guerre de ñu xam ko lol nak moo ñu waral nak tay nak wax deug yalla li yefam la bu ñu démé ba tuddee dara président féram jël ko c'est normal tamit ñu indil ko ko parce que momit it xaritu président la nak yefi xaritu président président la xaritu bourbour la donc moo tax trophée bi moom bosam la sotti ceeg def ci la rek te xam nañ ñi rek ñoom cépp lu ñu yëngu rek social fekk réew mi mën a soqalikuwaat ñu jàppale jeunes yi dana ci baax mais tey kontaan nañ trop nag ci ci teewaay bi fii tey wax dëgg yàlla yal na leen yàlla jàppale nag mébét bi ngeen am ci askan bi mooy jeunesse bi tey yal na leen ci jàppale parce que jeunesse moom mooy réew te soxla nañ jàppale waaw avant tout dañuy sant bu baax ah. di sant képp koo xamante ne tey yaa ngi doon suivre làmb ji le avril tey yàlla def ñu am ci ndam trophée bi président de la république ñu indi ko suñu xarit suñu mag basiru Ka mi nga xamante ne suñu lépp la sonn ci suñuy bés di jàppale jeunesse bi ah. nit ku ñëw rek boo ko waxee sa problème rek mu faj ko kon donc nit kooku noonu dañ koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm mu nekk sama xarit nag sama combat bi da cee sonn trop te man xam naa dara ndax war nañ ma ko kon donc tey trophée bii nii moom du ko mérite ma indil ko ko ndax da tey mënoon na ko ci bañ a fekk ma kontaan ci moom trop indil ko trophée bi nii trophée président de la république di wax président comme ni ko sama papa mohamed ali ndiaye waxee rek tey genre yu mel nii la ñu war a dooleel parce que ñii dañoo bëgg askan bi kon donc askan bi nag ñooñu nga war a dooleel di ñaanal Basirou Ka yàlla na ko yàlla jàppale yàlla yokk ko di ko trophée président ngi nii ah indi lu ma ko kenn ku dul Ka mu ngi lay ñaan yokk nii trophée baa ngi nii mm-hmm. en haute voix laa koy wax di mm-hmm. ko jox moom ñi di wax président sa trophée bii nii Basirou ngi nii moom laa ko indi mu nekk nit ku baax nit ku gore nit ku dëggu yal na ko yàlla defal jàmm yàlla bàyyi ko ak njabootam ci barki Seydina Mohamed ah. di sant képp koo xamante ne jàppale Lac de Guiers numéro 2 sant fan si di fan sant ñëpp daal bàyyiwuñu kenn merci beaucoup. jërëjëf merci.